nga xam ne lu ne dégg na ko wala daj na ko ci xeex njaayum suuf boo xam ne du yoon tey jii nag nga xam ne yàlla may nañu ak seen jàppale yéen ba assemblée nationale am nañ fa xaaj bi suñuy député lañu daanaka waaw opposition lañu lu ngeen am lu mel noonu seeni ndaw jàng nañu am nañu xam-xam nañ ko defar ba mu mat ñu teg ko suñu loxo ñu teg ko si loxo député yi ñu yóbbu ko penc ci réew mi mu doon débat loolu lañu diggante wala ngeen bane leen jox leen ñu majorité assemblée donte am nañ ko te ñu fokkati ko suñu loxo am nañ ci assemblée loo xam ne tey may nañu doole xam ngeen bu njëkk da ngeen doon dégg Ousmane Sonko député ngeen taxaw gis Ousmane Sonko taxaw ci mimbaru assemblée bi wax loo xam ne Sénégal yëpp tàccu tey nag am nañu 53 Ousmane Sonko biir assemblée nationale te ñu ñëwee askan kon ya ca des yëpp nag comme waxtu bi dafa dafa xaw ñuy xaw tënk ma wax leen ni dégg naa ko te xamoon naa ko balaa muy dugg si fii mbirum xëyum ndaw mbirum hôpital bu ñuy fajoo mbirum collège wala lycée ak yeneen ak yeneen. lu ñu dugaloon la te dinañ ko yeesalaat ci suñu programme waaye loolu yëpp ñu koo def du loo xam ne da ngay ñëw dëkk boo ñëw ñu wax la nga ne ah jë naa leen ni su ma faloo rek dinaa def lii loolu mbirum politicien la te ñun duñu politicien waaye li ma leen mën a wax mooy bu dee ci kàttanu yàlla askanu senegal wóolu nañu ba dénkuñu réew mi en 2024 allah. lay suñu priorité mooy lii priorité askan wi dañu fexe ba dund bi yomb parce su dee loo xëy suba bëggoon jot matul sax ceeb ak diwlin ak suukar juróom ñett fukk ak juróom su dee ci koom-koom waa bitim réew ñoo ko téye est-ce que xam ñun suñu bopp gan lañu suñu biir réew te suñuy doom bu jógee ne maa ngi dem bitim réew ñu ne leen doo ñëw duñ la jox visa duñ la jox passeport boo jëlee géej gi li ci li ci li ciy tegu xam nañ ko kon mu ñuy def ba moomaat suñu réew muy premier bi mooy wax na léegi ni mag ñi waxoon nañ fi fii am na pétrole yàlla yàlla nekk loolu waaye fi ñu gisagum pétrole te gis fa gaz ci anam yoo xam ne alhamdulilah tabarakalla lu bëri bëri la te tey jii moomuñu ko téeméer boo jël tubaab yi ñoo moom juróom-ñeent fukk yi ñun ñu moom fukk loolu la Macky Sall signé pétrole bi ngeen di dégg gaz bi maa ngi koy wax 2016 ba léegi bind naa fi téere est dégg ngeen ñu weddi ko parce que loolu moo am ñu ne leen noonu la amee ci zircon bi lool la amee ci phosphate bi noonu la amee ci géej gi nga xam ne jaay nañ ko ay bato ñëw jël yëpp dem seen yoon loolu rek duñ ko delloo si woon ci réew mi léegi ndaw ñu liggéey léegi hôpitaux yi baax léegi léegi tapoté koy tapoté la koy joxe nag mooy am gis-gis te ñeme la ngay def parce que ñi jox ba pare dañu ñu téye du ñu gaaw bàyyi de jaral na leen ku fi yëngal ñu rey la gis ngeen ni ñu defoon Thomas Sankara gis ngeen ni mu defoon Lumumba gis ngeen ni mu defoon keneen ak keneen ba nañu complé Mamadou Dia fii ci senegal te mu gënoon ci senegal loolu ñu dab ba tey jii ñun nag gannaaw yàlla ragaluñu kenn ak lenn gënuñu de bis ñu tollee foofu ba téyewaat li nga xam ne moom lañu yàlla jox ci alal muy ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards yu kenn xamul nu mu toll buñ ko dénoncé ci réew ba pare la fexe ba lii am benn ger jeex ci réew mi ku ñu jiital fay la salaire yemal ca loolu loo ci teg rek na yoon dal sa kaw ñaareel bi mooy nañu fexe ba Sénégal yëpp ñu tolloo la leen parce que réew pour mu dox ba kenn du añaane kenn ba ñëpp seen xol féex mooy li ñëpp bokk na ci ñëpp jot li ñuy fexe ba Sénégal yi tolloole nag su doon dama ko wax ci tubaab égalité ak équité bokkul ma misaal ko ci wolof tolloole mooy kenn ku nekk li mu yellool mu jot si li mu yellool ci liggéeyam ci coonoom ak ni mu nekkee sénégalais dong rek mu jot ci waaye tekkul ni ñëppay tolloo parce que yàlla moo ñu bind te sédd li muy séddale ñëpp tolloowuñ si ci xalaat ak ci xel yàlla bo boo boolewul ñëpp ñu tolloo xel ci jëmm yàlla boolewul ñëpp ñu ñu tolloo ñu bokk ñu tolloo ñi dañoo gàtt ñi njool ñi xees ñi ñuul ñii dañoo am xel trop ba tey soo jëlee ñaari xale ñu ñu ñu ferandoo ñu commencé doo jàng alquran kii mun na mokkal ci ñaari at kii juróomi at lay mokkal yàllaay def loolu moo tax néew ñun ñëpp dañuy tolloo yàlla tollalewul ñëpp ci ni muy séddale waaye fexe na ba kenn ku nekk nga am loo xam ne ku la xool gis ni kii nit la loolu la wax ni ci ni ñuy séddale alal bi nañu fexe ba ñëpp tolloo ci nga dëkk Fuuta ak nga dëkk Casamance ci yem nga dëkk Fadial ak nga ci yem sénégalais sénégalais la ñoo yëpp wax kon nañu fexe ba ñëpp yem ci ñiy lii buñ ko defee réew mu sa baax lii moo ko baaxal lii buñ ko defee yow mi dëkk Fadial lii ngay jàmbat yëpp ci ay problème luy réglé wu la ci kaw nag foofu laay daanelee ñu ñeme sonn ñeme liggéey parce que léeg dañ naan ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi amuñu liggéey bëri na ndaw yoo xam ne ñu ngi def li ñu mën yëpp. waaye seen wërsëg a ubbeegoogul te état bi moo leen jàppalewul loolu am na. waaye am na ay ndaw yoo xamit la ñu war a def defaguñu ko ndax lépp mënul jóge ci état bi kon ñeme liggéey ak bëgg liggéey buñ ko mottalee ak li ma nii yëpp mën naa leen gaaral ni ci fukki at fukk. dix ans mun nañu soppi Sénégal bokk fi yàlla jële woon balaa ñuy door loolu ku ko génnewaat ne ko Sénégal ngi nii mu ne déedéet man beneen dëkk laa nekk. ñu ngi leen bu baax di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw leen ngeen faral laaj voilà pour bëgg pour bëgg demoo si bëgg ngeen suivre laaj bi da ngeen di abonné faral laaj. Hey! ak Fadial fi nga xam ne fii la président Ousmane Sonko doore ah, li nga xam ne mooy euh, Nemmeeku Tour bi ngeen abonné partagé live bi après li nga xam ne